éclaircissement je pense que ñu ñuy seetaan xam nañu bu baax mais bu baax a baax ni que monsieur Gaye la répondre question bi nga xamante ni moom lañ ko posé mbirum dialogue la ñuy wax man damay jouer carte sur table nee na xaw ma bëgguñu wuyu duñu ay démocrate machin et truc am benn problème nañu revenir tuuti. Mhm. président Macky Sall bu mu toogee ak fii ak léegi. il y a eu de fois ñu organiser ay waxtaan. bi ci mujj ban la Covid 19 bi mbas bi ñëwee ñun tous quand même on a vu même ñi nga xamante ne yaakaaruñu ko day am nit yi xam dañ koy dem wuy ji demoon nañ wuy ji mais résultat yi lan la y des ministres des DG qui ont volé notre argent notre argent nous peuple sénégalais président Macky moom moo ko wax parce que moom moo ne am na yenn dossier maa jël sama conc teg ko. mu jël coñcam teg ko ci rapport yi te nekkul rapport Covid 19 kese mais est-ce que on peut se fier à cet homme-là président bi nga xamante ne lu muy wax daanaka daf dëppoowul parfois ak actes yi nga xamante ne moom lay posé il faut qu'on soit sérieux dans ce pays nekkuñu ci benn théâtre bi nga xamante ne maanaam dañuy jàppee du ñu këlte këlte dialogue lan lii nekkul dialogue lan la loo ko tuddee. ma hmm. lii diil la wax jëpp loolu la parce que bu fekkente ne dialogue bi ngir askanu Sénégal moom moo ko tax a jóg man gëm naa du doon demee ni moom monsieur Gaye mii toog mënu laa wax terme de référence yi nan la ak nan la moom saa xamul on n'a pas suivi hier monsieur le maire bi Dias bi nga xamante ne moom moo doon wax ni que dialogue bi dialogue am la. Mhm. kooku moo la wax moom amul. terme de référence donc du kii toog fii moo la wax kii nag am na ko moo tey ñun. pour yow dialogue bi nan la waroon demee. dama ni la man sama ultime conviction moom lay wax président Macky Sall du nit bi nga xamante ne dañuy dialoguer ak moom parce que xam nga dafa am ay mbir yi nga xamante ne moom mooy wane ni que c'est-à-dire pare na pour dialoguer nañu revenir à tuuti les événements de mars 2021 il y avait le MTT. on se rappelle. mu amoon ay dignitaires yi nga xam ne dañoo ñëw rencontrer le m 2 waxtaan m bind xaatim jox ko maanaam ay dix ponk na président na ko respecté qu'est-ce qu'on a vu après juste les événements de mars il y a eu une traque d'activistes d'opposants waa kooku yow ñu ne la man ak kii ñoom ñooy xeex ñu àtte yéen yéen a ngi taxaw ci digg bi wante moom moo ngi jël ay yatam mais di dóor nit ñi mais Aïssa. Mm. kooku nekkul on nom bi nga xamante ne dañoo war a dialoguer ak moom.